waaw ñu ngi koy woo ba léegi après naa jox numéro yi. naam comme. ñoo ngi seen ko ñu def. jërëjëf ñu ngi. jërëjëf ñu. résultat ku ñu jàppale lañ bëgg suñu xale yi sonn nan boolekaag yooyu dongay daara yi avant màggal ba tey amuñ fu nekk jànguñu jàng jàng bu normal dafa gun ko avant màggal ba nege ñi ku ñu jàppale rek bëgg waaw Koundiane Ngiraane dafa bari ay daara lu mat juróomi daara wala fukki daara Ngiraane yi xam waaw ku ñu jàppale daal lañ bëgg sonn nan trop ñu ngi koy ñaan di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na te wér li mu yéene si dëkkam bi moo ko xam yàlla na ko suñu borom eggale jafe-jafe yi fi la ndox mi bëri na yàq na yàq na mais fi ñu toll nii bu di togg yéen naka ngeen di togg fan yëpp ay mu xam lii la ñu toog ay mu xam saak ay macarona wallaahi barke Sëriñ Tuubaa taw bu njëkk ba macarona lan toog man am na ñoo xam ne sax am na ñoo xam ne jaarawuñ sa togg añ ndax li ñu yàqule moo bari waaw sant yàlla rek. bu ngeen di taal nan ngeen di taale ay gaz ngeen yor wala. kii ay gaz wala fun na fi na matt yi këriñ bi doo day tooy mhm. te instant bi da ngay commencé taal ba si yàgg sa gaz jeex doo am foo ko saase. Mhm. bikir yëpp tëj mhm. waaw ñun daal sonn nan. ndoxum naan ba tey mooy loolu. robinet yi xelluwul bassin yi la yàlla xam doy na. waaw ñun daal xale yaa ngi lab

kër yi ngay gis yëpp yëpp ñii seen miir bi dafa daanu seen kër gi lépp yàqu na benn bagage génn fi ñun ñii ñëpp dañoo loru ci ndox mi rawatina nga xamante ni li gën am solo ci kër mooy ab toile di xam da ngay dem kër yi yëpp seen toile dafa fees ñii ci kaw terrasse la ñuy sangoo fi dañuy toggee añ sonn nañ trop daal soxlawuñ benn xaalis bu ñuy lekk ka naan nañu dimbali ci lii mu ñàkk nga xamante ni dootu am amata ci koñ bi daari seqaalañ ji ñaari weer ngi ni man ba ma ñëwee ba léegi gisuma ñu jàng fi ñii ngi fii lañ leen àll kër donga yi ñii ñibbi nañ jumaa yi ngiraaneen ji kenn mënatu faa jullee yàlla xam ne fan yépp dégg ñu benn juma bu nodd fi lekk gi nak mom dafa mank spécial marché bi kenn jaayatu fi ay mu xam saak ay espagate ak no lañu ñuy togg añ te jaadu wul waaw baax na jërë ngeen Boy, get them forward, get the clip. I don't know what's going on. Moldi sa marakwa.